li si naa hamdalli munsili lana waddaayi min sili sifaayi waddawaayi mamaran ibada bi du waaye li yatfahum bihi anil balaayi yal na yàlla dàq benn bëpp balaa bu di ñëw te yàlla na ko yàlla soril xajj ko ba mu dem ci àll ba bu dal kenn ndax kat kii sama doom ji jar naa ñaanal ndax at mu jot nii la koy defee wax dëgg yàlla xam na ne danoo néew doole dañu ñëw bi waaye at mu jot nii la ko defee kon nag man loolu laa koy ñaana ndax gone ba koy ñaanal danga koy ñaan ba tey mag te mag ko danga koy ñaanal ci yàlla yuntu bi yàlla na ko barkeb alxuraan ñu ngi fii ci kër Cheikh Ahmed Saloum Dieng Nasiru Diin fa tabarakallahu mu jël ay teraanga yoo xamante ni da ko jox sëriñ daara yi jox ko ñi nga xamante ni mooy néew ji doole yi ñu wax ni lii du guleet moom taxawaayam fa tabarakallahu ci diine ji ci lislaam bi saa su ne nii la koy defee ku ne xam na ni jamono yi weesu rek ci korite gi nii la ko defee woon ba ci mbas mi nii la ko defee woon ànd ak daara yëpp fa tabaarakallahu jàppale leen taxawu leen fàttewu leen ci bis bii nga xamante ni mooy feet gi gën a rëy ci jullit yi mu woo leen jox leen ay ndawal jox leen ay enveloppe ni leen dem leen ngeen ànd ak daara yëpp ñëpp bokk ànd jëfe ko kon fa tabaarakallaahu ñu ngi koy ñaanal yàlla bu baax yàlla na ko yàlla dolli kattan yàlla na ko yàlla dolli sutura li ñuy wax rek Ahmed Saloum Dieng Nasiru diin moom day dimbali diine waaye du hadimu diin kon fa tabaarakallaahu yàlla na yàlla gën koo jàppale ñuy wax ci turu daara yëpp fa tabaarakallaahu taxawaayam daal kenn mënu koo nat am na fu mu tàmbalee waaye amul fu mu yem yàlla na ko yàlla gën a kartanal gën koo dooleel ndax lii rëy na lool fàtte ñu baree bari ñu ngi ci lu ne waaye moom xelam xalaatam lépp mi ngi ci daara yi ak ñëw ji doole yi kon yàlla na ko yàlla jàppale yàlla na ko barke alquran wallu bismillahi rahmaani rahim ñu ngi sant suñu borom subhanahu wa taala mi ñu fekk may ñu fekke waat lii may ñu aussi ñu mottali suñu yéene niñ ko defee woon ci korite gi ndax réew mi àdduna moo toll ci am jàngoro ji wàcc ci kaw askanu àdduna te suñu mbokk daara yi am ci ñoo xam ne bërëb yi nekk duñ fa mën a génn Euh, jafe-jafe yooyu a tax euh, ñu de ñu leen di xalaat naka jëkk suñu diggante ñoom diggante bu yàgg la ndax ñaar fukki at ak juróom-ñeent ñuy taxawal bisub alxuraan ci weeru koor gi moo tax bi lii tax xawee rek suñu xel ci ñoom la njëkk a euh, ñu defoon ko ca Korite ga te ci bisu tabaski bi yàlla defal ñu tawfiixu ñu mën koo defaat mooy wut ndawal yët leen ko ngir ñu yëg bisu tabaski bi comme ni ko jullit yëpp di yëgee ndax ay néew doole lañ. ay tut tànk lañu ay nit lañ ñu tënku ci daara alxuraan yi moo tax nag ñu ci sant nag ndax lii buñ ko mënee am na benn benn yoo xam ni saa suñu àddoo rek ñu fekk suñu ci loolu ñu beral ci nuyoo ku mel ni suñu mbokku daara rajo Serigne Mbuub président directeur général bu CCBM beral ci ak cant ak ngërëm suñu mbokk Abdoul Fattah Sall mu Sëriñ Abbas Sall euh, nekkal fi ONG boo xam ni ñu ko tuddee ONG Al defoon na ko ci koor ga defaat na ko tey yëkkati na nag jébbal ñu ko barkeelu ko ci liggéey bi euh, nuyu ci aussi suñu mbokk Racine Sow bi nga xam ne moo jiitee kuréel jàmm ji moom it euh, Cheikh Mahamadul Bachir Ibn Cheikh Abdou Khadir boole woon ñu at yële passé ci Touba boobaag léegi mën na fukki at ak ñaar waaye lu ñu taxaw lu ne boobaag léegi mu ñëw wétlu ñu jàppale ñu ci euh, gunge ñu ci ñu ngi koy sant di ko gërëm di sant nag moo leen seen mbokki daara yi nga xam ni heure bu. lu mel ni euh, amee rek seen xel dañ ñu waaye yàlla ñu defal tawfiq ñu mën di amul lu ñu leen yët mu àgg ci ñoom euh, ñaan yàlla mbas mi yàlla jële ko ci àddina yàlla delluwaat dal ak jàmm ci àddina bi réew mi ñu amul lu moom yàlla def fi tawfiq nit ñi yàlla may leen wéru ñu mën a dellu seen ite comme ni ñu ko bëggee di sant suñu borom bu baax di wax ku lu amal wante bu xeer di nuyu ñëpp ci tabaski bi di leen ziyaar di ñaanal Cheikh Mouhamadou Mountakha suñu borom sàmmal ñu ko bàyyil ñu ko fi di ñaanal ki nga xam ne moom la def muy loxoom di bëtam di tànkam di Cheikh Mouhamadul Bachir yàlla gën koo kattanal gën koo taxaw wasalaamaaleykum wa rahmatullah